Abdou Ndiaye salaamaaleykum. salaamaaleykum. Bismillah. xaar imaam bi jàng waaw jox ko jox ko jox Bouchra Habib Ndiaye Bouchra Yes, yes, yes. Böyle. Yes. Efendim. Bismillah. Allahu Ekber. الآن من قيام

aligné nañ aligné. ñu xaar ñun dañuy régler danañ ko régler ñoom ñi taxaw lañ bëgg ñu kii dinañ régler lépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, Mouhamadul Habib Ndiaye ci Bouchra fii ci Kaolack moo lay nuyu yow xalifa bi di la ziar bi tahiyatul islaami di la ziar di la ndokkeel di la balu xaq di la masawu coono di ñaan yàlla it xusnu tawfiq wa taysir yàlla dogal suñu kilifa gi di xalifa bi. Eh, ca Tiwaawoon yàlla dogal mu yàgg di wàcc yàgg di wàcc bi xew-xew bi amee ba léegi ndax xam na ni moo ki yéen yéen a ko bokk xam na cheikh al islam alxaaji Ibrahima ñas la mu siqoon nag ñoom ca seen maam ya ba seen ñoom seen baay la ko dalee ca cheikh al xalifa alaaji Mansour sëriñ alxaaji Abdul Aziz sëriñ Mouhamadou Habib ak njaboot ga fa nekk sax nag ay magam lañu séq xam nañ ne kër gi kon benn la ci biir loolu xew-xew bi xew wàcc suñ kaw wàcc ci kow réew mi yëpp wàcc ci kaw àddina bi yëpp mu nekk loo xam ni su xawee moom mel na ni ci ni mu waxee léegi ni mu ma waxee kenn waru ko fee jiitu mu ñëw taxaw si dëj bi waaye yàlla dogal ay gàllankoor ay xat-xat yaram we xat-xat yaag ña ko soxlaak lañ ko soxlaa lépp mu xam ne nag ca dëgg-dëgg itam yéen comme yéen ak moom benn ngeen ci def ceeg sotti ci rek la kon man ngeen ko wuutu ba waxtu mu ñëwee àggale si njaalam ak njaalu wàtti waawoon ak njaalu réew mi yëpp fa tabaarakallaa loolu rek ko indi waaye waaj na ba tay fam waaj na ba tay fam tey jii léegi minute ak minute la ñu woon ne leen maa ngi nii di dugg Kaolack euh, dali leen taxaw ngeen ñëw ñu ànd dem mottali ji njaal mi nga xam ne yéen ñëpp defoon ngeen ko waaye ñu defaat ko tey ñu ànd nag ak doomu euh, sëriñ bi di sëriñ Habib si mu sëriñ Mouhamadou Mansour maanaam ah. sëriñ bi mi ngi ànd ak sëriñ maam Ousmane si sëriñ maam Ousmane Ousmane si waaw rakam di doomu Cheikh Alhaaji Habib di oh. caatu Sidil Haaji Malik ok ànd ak Mouhamadul Habib jarbaatam jarbaatam bu Serigne Mansour si Serigne Mansour waaw ànd ak Serigne Pape Diop Serigne Pape Diop bi xam mu ànd ak bokk yi mu àndal yëpp. ànd ak bokk yi Serigne Mansour Fall. mu ngi ci Serigne Mansour Fall. bu kër Serigne Samba Fall mu ngi nii toog ñu ngi ànd ak magam di xaritam Alaaji Gueye mu ngi ni moo yor station boobu ci garage Dakar bu njëkk bi moo fa nekk ba léegi tabarakallaa ak ñun daara jeeg xale yi mu àndal di la wax rek ne xat na lool ba xaw na sax jànnaxe naan teemoo xaar boobu ba après gàmm mu door a ñëw waaye daal loolu mu xool ko xool rafetloo ko mu ne il faut que mu ñëw Cheikh Omar ñu ngi ànd ak benn Cheikh Omar mu defoon benn xasida pour mu mu nekk mu wuutu ko seexu bismillah mën a jël kàddu seexu ah, mu jàng xasida bi ñu jox ko micro bi waaw alhamdulillah teel leen ko teel leen ko wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa baadu fa hada risaun naabiun من قلوب مفعمة بالود والصفاء بإذن الخليفة السامي مولانا الشيخ أبي بكر أبي بكر سي محمد المنصور حفظه الله ورعاه في جناب صنوه وأخيه الفقيد الخليفة الشيخ أحمد التجاني إبراهيم النس تغمده الله في دار كرامته آمين جلل ألم فحارت الألباب وانصد في وجه الأنام الباب ولسان حال القوم عبر مفصحا كل بفقدك يا إمام مصاب لملا وقد بكت السماء وأرضها wa ala bihi wajha alfadaida baabu mawtu alxalifati salmatun fi diinina wallahu jaabiru ma bidaaka yucaabu yakfihi an allaha xallada dikrahu fi alaxirina wa fi lmada gallaabu lam yaftaxir abadan lam yaftaxir yowman bi jaddin aw abin lakin bi bazzi makaarimin yajtaabu shahida alanaamu bi anna ahdaka fi lxilaafati fiihi yumnun lilwara wa lubaabu in xibta anna falxalifatu baadaka almaaxi bihi yumxaa radan wa azaabu inna nuazzihi wa namulu annahu kufun tuwaasiru sayrahu alasbaabu inna nuazzikum bani abdil ilaahi bi safwatin hum minkumu anjaabu fallahu yukrimuhum bi afdali mursalin salla alayhi wa sallama alwahaabu wal aali wal asxaabi akrami xilfatin wa a'immatin fi ddiini hum andaabu asalaamaaleykum wa rahmatullah Eh, eh, sëriñ bi suñu bàyyi Mouhamadul Mahi ak bokki jullit yi fi bokk daje yépp sëriñ bi nee gannaaw tudd yàlla tudd turu yàlla julli ci sallallahu alayhi wa mu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na nuyoo boobu mu yëkkati ak ziyaara bi mi ngi koy dendale ndax nee na ziyaara bi mu jóg lu war la nee na fii yàlla dogal ñu toog fi tey lu jiitu ëttu lu jiitu ëtt bi ëttu Cheikhna Ahmed Tijani radiyallahu anhu la ñi fi daje njaboot mbooleem ñi fi daje ñëpp njabootu cheikh lañu kon na kon kenn ku ci ne war nga jox sa loxo xol war ngaa jox sa loxob xol sa moroom nuyu ko ziyaara ko ngir jëm Cheikh na Ahmed Tijani nee na bu loolu wéyee mu di kër goo xam ni mu di kër goo xam ni nag fii lañu bokk bokk gi nag du ñoo ko defal suñu bopp yàlla ko dogal. yàlla moo dogal suñu bokk fii. tànn ay magam. tànn ay magam. baaxal leen. baaxal leen. ommatal leen boppam. may leen ak mayam. ba seen liggéey ak si fii. fii. mooy suñu ñaari maam ya. nee na kon. bu ñu ñëwee fii. bu ñu ñëwee fii. ci suñu kër rek la ñëw. ci suñu kër rek la ñu mooy jógewuñu ci kër gi jëm ci kër gi. li ñu mooy ci dañuy wax ne ci néeg bi la génne. dañuy ci néeg bii la génne. dugg ci néeg bii ñaari néeg yëpp nekk ci génn kër. loolu nee na loolu moom mooy li am. ñëw na mu ñëw tey nag tànki jaale si. mbokk mu jaale si mbokk mu baax mu fi yàlla indi woon. ba mu neex ko moom yàlla mu jële ko fi. lillahi. nee ngeen dañuy wax ni lillahi. ma aata. ma aata. maa axad loolu na loolu kat moo fi xew moo tax kenn mënu moo tax loolu yi fi xew kenn mënu ca dara waaye kii fi jóge waaye kii yàlla dogal mu jóge fi ñi ko fi jëkk jóge ñi ko fi jëkk a jóge ñoo ko gën fuuf ñoo ko gën fuuf ndax bu amee ak mbaax ndax moom mi fi jóge bu fekkee ni xamel nañ ko ak mbaax ba di ko ba di tudd mbaax ga ca barke ñooñee la ko ko yàlla sédde ca la amee lu mu liggéeyu ca la amee moom mi fi jóge loo xam ni liggéeyu ko da ko fee fekk yàlla nag defaree ba nag moom bu defaree ab defaram ba mu baax mu yëkkati la boole la ca mu yëkkati la boole la ca loolee mu defar yéene ne la yàlla yéene ne la aw yiw yiw moomu yi yàlla bu ñu rëcc yàlla bu mu ñu rëcc ñun njaboot gi ñun ñëpp yàlla nañu bokk jariñoo yi woow yi nee na loola di liggéeyu mag ña ca jamono yañu ko liggéeyee ak ñaan ya ak fa ñu ko ñaane ak xaalit ba ñu toll woon di ñaan ñaan yooyee ndax nee na yàlla loo mën a lu waay yëkkati rek dégg na la moom gën nag. waaye la gën nag gannaaw dégg ga. mooy yàlla déglu la. te mag ñi ñoom alhamdulilah yàlla déglu na leen ñoom. nee loolu moo jur jataay bii. nee mu ñëw nag jaale si. neena njaal nag du fi jóg. fii ak nit a ngi ci kaw suuf di dund. du ñàkk nag léeg-léeg sigil ndigaale am. waaye li ñu mën a ñaan rek liñ ci mën a wax mooy yàlla sorele app yi nee na fii muy Medina maam Ibra Cheikh Ibrahim Niass nee na yàlla dogal nag mu gëj fi lool waaye sama yoon nee na yoonam wu jëkk fii ci Medina nee na góor gi alxaaji Alioune Ciss rahmatullahi aley moo na moom la àndal benn bëccëgu aljuma ñëw ñu ñëw fii fekk fi góor gi muy maam Cheikh Ibrahim Niass ñoo nee na ñoo ànd ca boobee ak moom dem ca juma ja ci na keroog ba muy dem ca jumaa ja ci loxoom bii la téye ba ñu dugg biir jumaa dugg ca biir jumaa ja nee na mu am ruq bu mu ko yebal ni ko julli demal julli fee. ba ba na ba ñu jullee ba sëlmal. nit ñi jaxasoo. nit ñi jaxasoo. mu génn dem. nee na moom mu daal di génn dem. ànd ak góor gi Alioune Cissé rahmatullahi alayhi. nee na ñu dem. amoon nee amoon na taalibe góor gi. bu santoon sekk. bu santoon sekk ca yooyee jamono. nee na booba ma nga dëkkoon ci wetu kër Serigne Mbaye góor gi Serigne Mbaye siis nee na nee na alxaaji Maguette Seck la moo ñëw ci guddi nee na alxaaji Maguette Seck moo ñëw ca guddi ne la yow day gannaaw jumaa ji sëriñ bi laajte na la ba tàyyi nee na ma daal nettali loolu góor gi Alioune Cissé góor gi Alioune Cissé ni ko fi mu ne de guddi na boo ñëwatee. waaye da ngay def rek boo ñëwatee. lu mu gàtt gàtt. lu mu gàtt gàtt. nga teg fa sa tànk. nga teg nuyu ko ko. ziyaara ko ndax sa baaya. loola nee na loola nag yàlla wëlbatiku saxalal ñu ko. di mu far mu di ko def saa bu ñëwee kaw la. ba mujj gi. ba nee na daawul mujj moom góor ga jaarati sax ci turam nee na sama doom rek la ma mujj di wooye sama doom rek la ma mujj daan wooye nekkoon nañu keer nee na nekkoon nañu fay ca Qahira keer bu ñëwee neena bu ñëwee moom tukki si fa nee na da koy yónnee ndaw woolu ko nee na ku ñuy wax Moustapha Kunta di doomu Sidi Ali ca Njaasaan. moo daan ñëw. na Moustapha Kunta moomu moo daan ñëw. ni ko góor gi nee ko góor gi nee na. ma waxal ko doomam. ma waxal ko doomam. ni ko ñëw na. ma ànd na mu ànd ak booba Pape Sidi Hadj Malick si Maodo bu seexal Al Hadj Aziz boobu ñoom ñëpp ñu nga foofa ca Caire. nee na bu ñu àndee ñoom ñëpp dem ziyaara ji góor gi. bu toogee tuuti. nee na bu toogee tuuti ni ñuy ñaan nee day daal wax ni nañu ñaan te ngeen may ma nag yéen ma waxtaan ak sama doom jublu ko ci moom nee na loolu amoon na ko ci moom jamono nag nee na jamono nag lumu la yombalal tey lu la yombalal tey mën na la jafeelal ëllëg mën na la koo jafeelal ëllëg booba nee na booba ki nga xam ni moo daan moom laa daan jokkool. nee na ki nga xam ni bu masaan yegg si moom lay moom lay jokkool. mu suñu mbokk ni suñu mbokk mu baax baax ma di googu alxaaji abdallahi ñas rahmatullahi alayhi wa radiya an. doon xalifaam. na doonoon xalifaam. nekkoon nee na nekkoon fi. nee na yàlla dogal seen diggante ñu jaxasoo woon lool. nee na fa tabaarakallahu muy ak bokk nag gu gu yàlla dëgëral. suñu mbokk fi jóge. nee na suñu mbokk mii di Baye Cheikh Ahmed Tijani. suñu mbokk bi fi jóge. nee nga suñu mbokk Alxaaji Xasan Siise. nee na moom it daawul taqalikoog moom. nee suñu mbokk Sëriñ Makki Ñas. nee na moom it daawul taqalikoog moom. moom it daawul taqalikoo ak moom nee na sëriñ Maamun rahmatullahi alayhim jamian wa radiya anhum daawul taqalikoo ak ñoom nee na yàlla dogal nag mu gëj fi ci jëmm waaye xol bi nag masu fee jóg moom ndax looy nee na lépp looy dund te bokkuloo ca ko defar te bokkuloo ca ña nga xam ni ñoo sabablu loola ba mu am loo mën ci di loo man nag yow ma jëw gannaaw loola di ko loo man ci di ko raay ngir dara bañ a taq ca loola war na ku nekk nee na diggante suñu maam Abdullahi ñas ak Mawlana Cheikh El Hadj Malick nee na seen diggante chance la ci ñun li ñu ci am nag bu ñu yàlla bàyyee ak suñu sago. bu ñu yàlla bàyyee ak suñu sago. mooy dundal diggante boobu. mooy taxaw tem mu ci dundal diggante bi. ak di barkeelu ci ñoom. barkeelu ci ñoom. la ca des nee na la ca des nag. te dox seen diggante ak yàlla. te dox seen diggante ak yàlla. loola ñoo yàlla ñoo ko xam. ndax ndax ñun fekkewuñu loola. fekkewuñu la ca itam la ca topp. nee na kon. ñuy sant yàlla. ñuy sant yàlla. ku nekk. kenn ku ne. bëgg nga baax. bëgg ngaa baax. te baax. te baax. yàlla dafa ni maa ko téyel sama yàlla dafa ni man mii maa ko sama bopp. innal fadla bi yadillahi. nee na kon fépp foo xam ne soob na ko moom yàlla mu baaxal ko. te nit du tànn ay bokkam. te nit du tànn ay bokkam. mu boole ci. nee na mu boole ñu ca ñun. bu ñu góorgóorloo. bu yàlla mën nañoo boole defal tawfiq sëriñ bi mu wëlbatiku nag di la masawu coono di ñaan yàlla nattu moom la yàlla dogal mu wàcc ci sa kaw ndax ñi fi jaar li ñu fi def liggéey bi nga xam ni moom lañu def fii ci ëtt bi ba tey jii yàlla yombal lépp nga bëgg leen wuutu tey jii nga toog toogaay wuutu leen nit ñi xam leen nit ñi xam leen xamoon leen ñoom bu yàgg bu tey jii ñu di la xoole seen jëmm ñoom ñooñee dem nee na loolu natt bu rëy la waaye nag yàlla yàlla képp koo xam ne nattu na la ci boppam na yëg ni njàppaleem dina ca topp kon nag yàlla na la yàlla jàppaleel boppam ñun ñëpp nag yàlla dogal na ay njaboot lañu ay taalibe lañu ay taalibe lañu itam nañu nangu loolu bokk ci nag ci biir taalibe yi te bañ cee nekk rek ndax nekk bokk ci nee na mbir yàlla boole la ca ak nga nekk ca du benn nekk ci rekk nag wóorul bokk ci moo gën a wóor yàlla nañ ci yàlla boole bi jaahi yàlla na la yàlla may wér sëriñ bi yàlla na la yàlla may kattan yàlla na yàlla guddal saw fan jaakaaru jaam yi daje ci yow yàlla ko yàlla dëggale ci yow yàlla bu benn yaakaar tas lii fi xewit mënula ñàkk mënula ñàkk nee na sa baay ba Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu nee na daan na faral di wax ni mënula ñàkk mënula ñàkk dem mënula ñàkk nee na dem mënula ñàkk waaye yàgg fii it wàññiwul yàlla dara kon nag yàlla nañu yàlla doole yàggal fii nee moom nag tey jii bisu sant yàlla la ci moom ndax yàlla dafa dogal tànk yi mu ñëw ba yegg si fii tey mu yàgg koo waaj lool saa bu waajee rek am lu dox digganteem ak ñëw mu mujj fab yépp nag delloo yàlla rek ni incha allahu bis bu yàlla nam dinaa dem moom moo tax tey jii mu jàpp ni yàlla namm na loola waaye daf ko wax ni ko yaay góorgóorlu nag. yaay góorgóorlu nag. ma jàppale la ma moo tax ma ñëw. nee na moo tax ma ñëw. te yëguluwu ma. mooy nee na mooy loolu mooy góorgóorlu gi. ba ma ko defee nee na ba ma ko defee yàppale yàlla jàppale na ma. sama yéene yegg. waaye lii moom. ca njaal benn ca bees bees ba laa fi bëggoon a ñëw. bokk bokk. ak yow jataay ba bokk koog bokk yi ñoom xam ni ñun ñii la bokk yi daje ñëw di ñu jaale ñu bokk ci ñi nangu njaal ma nee na kon li ñu ñaan yàlla mooy dee yàlla na gëj fii yàlla na ap yi yàlla na sigil ndigaale sore yoo yàlla bu ñu gaaw a tànk yu mel nii yal na yàlla dollee barkeel lépp yal na yàlla yokk sutura yi peegal ñu boppam yal na ñu yàlla peegal boppam ak i mayam ak i mayam ya nga xam ni moom la mayoon mag ña ba ñu yaakaar ba mën a yaakaar mën a tabbi ñu yaakaar ni mag ñi kat mag ñi képp ku bootu ci seen gannaaw nanga nga dem. na yëg ni man ngaa dem. benn góor ca ndar. nee na dafa am genn góor ca ndar. xew mu rëy am. xew mu rëy am. mu nee na góor ga taxaw di seetaan. gan ñi di wàcc. gan ñi di wàcc. di dugg. ñii di taxaw. ba mu yàgg. ba mu yàgg. mu ni fii de. mu ni fii yowmal qiyaam rek laa fi gis. ndax gis naa koo ñëw. ndax man kat fii gis naa fi koo xam ni buy ñëw ci xew mi. dañ koy dogalee da damaa gis aw nit dañ koy dogalee ji. ñëw dugal ko ca biir. am na koo xam ni. am na koo xam ni seetlu naa ko. dafay ñëw. dafay ñëw. ñu téye ko ca bunt ba. mu ko defee mu moom it mu wëlbati ko am ku mu geesu ni kii kat ñoo ànd. ñu bàyyi kooka mu ànd ak moom dugg. am ñëw. am keneen ku ñëw. ñu téye ko mu lay ba sonn ñu wàññi ko. mu ne ndekkee kat pencum yàlla kat nii lii may gis nii pencum yàlla la may la may niru. yàlla lu mu wax lépp lu mu wax. ñoo amul seetlu. ñun ñoo amul seetlu. waaye am na lu mu ca comp wan ñu ko ngir ñu mën kaa mën a dé mën koo déggee waaye sëriñ bi mu ni kon nag gannaaw teewaay bi mu ngi ci teg daal di sant yàlla bu baax a baax a baax bi yàlla tegee bëtam bii ci sa jëmm ji sa loxo bi mu saafoon teg yow ngeen joxante loxo nee na lii mébét la woon ci moom yéene la woon ci moom bëgg-bëgg la woon ci moom càkkutéef la woon ci moom fa tabaarakallahu waaye tabaarakallahu yàlla mottalil na ko ko tey loolu nag mu di ci sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla bu ñu fi gëjati waaye bu ñu fiy dellu si yàlla bu lu mel nii delloo si ñu fi yàlla na rek yàlla jàmm rek di waral suñu ñëw fii nee na mi ngi fàttaliku góor ga maam Ibrahim nee na mujj giseem ak moom nee na ñu nga mujj a gisee Maroc nee na ñu bokk nekk ci benn hôtel nee na moom muy génn dajeeg moom mi ngi ànd keneen nee na ma daldi ko nuyu. kooku. mu ni ma kooku. ma ni ko sa doom. ma ni ko sa doom. mu ni ma eh sama doom. Eh, nañ wut fu ñu toog. nee na ñu daal di daal di dem wut fu ñu toog. nee na foofa nag la yàlla dogal ñu waxtaane fa. nee na yoonam woow wi la la fa jóge tukki. bala bala xew xew gannaaw ba. nee na saa bu yàlla masee wanale. waxtaan nañ lu bare bare bare bare bare kër nee na kër yi daal ku ci yàlla boole képp ku fi yàlla boole doom doom taalibe yaakaar mbok wàcceel sa bopp sa bopp def sa bopp taalibe ci mag ñi fi jóge ci mag ñi yàlla defaral la sa lépp lii daal sëriñ bi ci gàttal ak xel moo xamante ni bii tabaarakallah jubul jubul nee na na loolu la doon waxe neena ngeen jéggal ko kon nag rëcc rëcc yi mën a am ci biir kàddu yi nee na mbo ñii mu àndal mbokkam yi mu àndal ñëw nag wan nañu ne lim nañ leen léegi nee na kelee toog rakkama suñu maam cheikh al xaaji mouhamadul habib si radiallahu anhu moo ko jur nee na moom mii moom la ñuy tudde maam ousmane baayu mawlaana cheikh al xaaji malik maam habib jur ko nee na kii nii kii mooy mouhamadul habib di doomu suñu baay seydi mouhamadul mansour borom daara ji rahmatullahi alayhi wa radiya anhu nee na di jarbaat tam moom ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay nee na fa tabaarakallaahu nee nga sëriñ Habib Ndiaye mii nag ak sëriñ Mansour Fall mii ak alxaaji Guèye mii ak xale yi ñu àndal ñoom ñëpp sa njaboot lañu yéen bokk dëkk bi fii lañu dëkk ci Kaolack sa njaboot lañu ñoom ñoom ba yëf yi xewee ba yëf xewee ñoom ñëpp ñoom nañ ma téléphoné gont ndax da gontu tey walla xëy da ngay xëy si ñëw nee na ñoom ñii ca saasa lëgal nañ ko ci loolu waaye nag mu bàyyi lépp ci loxol yàlla rek mënu leen woon a wax dara tey nag nee na yàlla defal gu na ko sutura nee na ñu ngi ànd ak suñu benn doom bu ñuy wax Abdou Gueye nee na moom it mi ngi fi fa tabaarakallaahu nee na mu ngi nag dellu di yeesal ziyaara bi di yeesal ziyaara bi mi ngi yeesal ziyaara bi di ko jubale ak suñu yéene ci Cheikhna Ahmed Tijani Cherif radiyallahu anhu nee na xam ni moom nga fi toogal moom Cheikh na moom Cheikh kon nag yaay Cheikh rek nee na kon ñu ziyaara la ñu masawu la coono ñaan yàlla nag yàlla na la yàlla jàppale te ku yàlla jàppale nga am la nga bëgg di nga dem fa tabarakallah alhamdulillah kon loolu moo doon kàddu yi mu ni asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bismillahi rahmaani rahim. sëriñ bi nag bismillahi rahmaani rahim. Ah, la aarifu xaqan kayfa uabiru an nafsi fi hada alyawm alkarim alyawm alladi wafida ilayna wafdun ma wafdun aazza fi nufuusina wala akrama indana min hada alwafd alqaadim min tiwaawon alazizati aydan fi nufuusina ah, falaysa lana kalimatun nastatiicu أن نقول ما في أنفسنا فرحا بكم وسرورا بمقدمكم في مدينتنا هذه التي هي مدينتكم أيضا كما ذكرتم في كلامكم وفي هذه الأسرة التي هي أيضا أسرتكم كما ذكرتم في كلامكم وحقا سمعنا كما عهدنا وعهد السنغال منكم دروسا قيمة دروس في الأخلاق دروس في العلم دروسا في الدين دروسا في العلاقات الإنسانية كيف يجب أن تكون بيننا دروسا في الأخوة الربانية أيضا كيف يجب أن تكون عندنا حقا وليس جديدا أن نسمع منكم وتسمع السنغال أيضا منكم هذه الأخلاق هذه الدروس هذه العلوم النافعة هذا التاريخ التي حقا يحدث أن السنغال أيضا فيه رجال وصلوا إلى كل ما يمكن أن يصل إليه رجل في الله تبارك وتعالى كما ذكرتم عن أجدادكم وأجدادنا كما ذكرتم عن آبائكم وآبائكم وسلوكنا جميعا حقا آباء الذين وضعنا الله في أماكنهم هل نحن نستحق ذلك أم لا نستحق هذا عند الله تبارك وتعالى ونرجو أن نكون أهلا لهذه المكرمة من الله علينا جميعا لأن الله تبارك وتعالى كما ذكرتم إذا كلفك فهو الذي يتكلف عنك وهو الذي ينوب عنك في كل ما كلفك به نرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك لقد تشرفنا كثيرا في هذا اليوم المبارك الذي نرى فيه هذا الإنسان الذي تواجدنا في القاهرة ولكن لم نعرف بعضنا هو عرف مكي وعرف حسن وغيرهم ولكن نحن ما تعرفنا أيضا ورأيته منذ ذلك الوقت حتى هذا اليوم لا أراه في التلفزيون وأراه في المناسبات العامة ولكن هذا الجلوس جنبا إلى جنب حقا هذا لم يكن أنني سوف أجد هذا الشرف سبب هذا الشرف مؤلم نرجو إن شاء الله أن نكون لقاءاتنا كما قلتم لقاءات أكثر إنسانية وأكثر انفتاحا وأكثر قربا إلى بعضنا بعضا لله تبارك وتعالى ووصولا إلى أن سيرة آبائنا وأجدادنا هو سيرة آبائنا وأجدادنا هو بناء هذه الإنسانية الرفيعة التي تعرف كيف تتصرف في هذه الحياة الدنيوية وكيف تتصرف في عباد الله تبارك وتعالى في قيادتهم إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى وإلى ما يرضي نبيه وإلى ما يرضي آباءنا وأجدادنا تقليدا واقتداء بهم لأنهم تركوا سبيلا حقا قل أن تجد مثل هذه السبل في غيرها من البلاد الإسلامية وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ومنة منه أننا أنني بعزتي وجلالي سوف أخص السنغال من عندي موهبة مني إليهم فتبارك الله رب العالمين فحصل في السنغال حقا رجالا كانوا ممكن أن نكونوا نوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرنا الشيخ الحاج عمر تال سوف نجد رجلا فإذا ذكرنا الحاج عبد الله سوف نجد رجلا فإذا ذكرنا الشيخ الحاج مالك سي سوف نجد رجلا وإذا ذكرنا الشيخ أحمد بامبا سوف نجد رجلا هؤلاء الأعلام الذين أكرمهم الله بهذا البلد السنغالي الصغير فبمعنى أن كرم الله ومنته وفضله بمشيئته حقا لم ينسى السنغال في هذه المكرمة وفي هذا العز وفي هذه الأماكن kenn xamut looy wax ci bés bu tedd bi ci suñu bakkan bi sëriñ bi nee na kenn xamut looy wax tey ci bés bu tedd bi ci suñu bakkan yi mun a dëgg dëgg àgg na fu nekk ci ñun mun a àgg na fu nekk ci ñun ci yëg ci yëg ak xam taarix bi muy waxee ak ñun mun a ak xam taarix bi muy waxee ak ñun ak buñ mu nettali ak ah, lim ñu nettali. moo tax mu ne ko. mu ne moo tax mu ne ko. li Sénégal miin ci yéen di ko xam. mu ne li Sénégal miin ci yéen te di ko xam. mooy joxekatu ay dars ngeen. mooy joxekati ay dars ngeen. dars yoo xam ne dars yu nite la. dars yoo xam ne dars yu nite la. dars yoo xam ne dars yu diine la. dars yoo xam ne dars yu diine la. dars yoo xam ne dars yu xam-xame la. dars yoo xam ne dars yu xam-xame la. xasida bii ñu njëkk a jàng fii. mu ne xasida bii ñu njëkk a jàng fii. dëgg-dëgg xasida marsiya la. mu ne dëgg-dëgg xasida marsiya la taala waaye boo dégloo waaye boo dégloo di nga dégg xasida boo xam ne di nga déglu xasida boo xam ne min uyuuni sha'r al arabi nga mën a wax min uyuuni sha'r al arabi sha'r al arabi lu nekkan ci biir mu ne parce que lu nekkan ci biir balaaga balaaga wal xilm wal xilm wal mantiq wal mantiq wal maarifa wal maarifa kullu haza mu ne kullu haza jàng nañ ko ci jàng nañ ko ci xasida yooyu xasida boobu ñu dégg mu ne bi dalil li anna al madrasata allati xaraja minhu haadihi al qasida المدارس العليا من المدارس العليا في العالم الإسلامي في العالم الإسلامي المدارس العالم الإسلامي لأن المدارس العالمي الإسلامي لا يخرج أفضل من هذا لا يخرج أفضل من هذا شعرا وأدبا شعرا شعرا وأدبا wa وفكرا wa وعلما وعلما حقيقا دëgg dëgg ku nekk xam na ne école ba mu bàyyeekoo ku nekk na xam na ne école ba mu bàyyeekoo école bu commencé école kon nag waa école boobu bu ñuy wax mu ne kon nag waa école boobu bu ñuy wax yal nañu yàlla may luñ mën a déggee yaa rabbi yal nañu yàlla may luñ mën a xamee yal nañu yàlla may nu mën a ubbeekoo yal nañu yàlla may nu mën a ubbeekoo ba nangoo ba mën a jëriñu mu ne bokk na ci dars yi fi wesaare léegi yal nañu yàlla may nangu yal nañu yàlla teg loxo sàmmam ba loolu nga xam ne mooy suñu dono ba loolu nga xam ne mooy suñu dono mu ne yàlla bu ci suñu tànk yi jeng yaa rabbi yàlla bu ci suñu dox jeng mu ne wax nga yaa ngi enu lu diis a diis koy wax ci kaw xam-xam ak tajruba. mu ne yaa ngi koy wax ci kaw xam-xam. ak tajruba ak ko rek parce que wax nii. mu ne waxoo ko rek parce que da ngay wax nii. xam ne. mu ne kon wax la boo xam ne. dëgg-dëgg ay daan. dëgg-dëgg ay daan. mi a ko tuddee falsafa. mu ne dëgg-dëgg foofa la bàyyeekoo. waaye bàyyeekoo itam. waaye bàyyeekoo itam. ci xam yàlla. ci xam yàlla. ak xam. masi atom lu ko neex rek masi atom lu ko neex rek xam nooy sàmmanteeg xam nooy sàmmanteeg masi atullaahi masi atullaahi ak naka nga koy téye ak naka nga koy téye ak naka nga koy nangoo mu ne duruusun aydan xelam dina jaxasoo yal na jaxasoo nii. mu ne bu fekkee nit xelam dina jaxasoo yal na jaxasoo nii. ndax dëgg-dëgg. ndax dëgg-dëgg. ku nekk xam na. ku nekk xam na. ñu toog fii ñëpp. ñu toog fii ñëpp. ala ixtilaafi mustawayaat. ala ixtilaafi mustawayaat. jàng nañ. jàng nañ. dégg nañ lu bees. dégg nañ lu bees. dégg xam-xam. dégg nañ xam-xam. waaye dégg nañ nit itam. ak ay nit waayam. mboolem nit ak ay na boppam. na boppam. nit laa. ne nit laa. naa nekk rabbaani. waaye ci mboolem samay tasarufaat. mooy ci mboolem sa tasarufaatam. loolu xadis mu ne loolu xadis bi yëpp. foofu rek la ballee. foofu rek la ballee. ci xol bu ci xol bu leer. ci dégg gu leer. ci ci nangu gu ci nangu gu leer. loo xam ne kenn mënu loo xam ne kenn mënu koy paase. waaye fa mu teg rek la ñuy ne waaye fa leen teg foofu rek lañ koy teg. lu nekk ko delloo ci yàlla rek. lu nañ ko delloo ci yàlla rek. mu koy defee nam ko bëggee moom yàlla. mu koy defee nam ko bëggee moom yàlla. te dara du ci nekk lu muy loo xam ne daf ñuy jëriñ rek. te dara du nekk ne daf ñuy jëriñ rek. mosoo fee ñàkk a ñëw. mu ne mosoo fii ñàkk a ba xew bi xewee ba tey. amul benn bés buy paase. amul benn bés buy paase. ñoom te nekkoon ci yow la bàyyi koo wax ay wax yu tedd mun a wax ñu ay wax yu tedd wax ñu wax yu baax mun a ba nga xam ne gis nañ la te sa jëmm teew xam sa taxawaay te sa jëmm teewul ndax ñu fi ñëw ñëpp kenn ku ci nekk bu euh, waxee ci sa làmmiñ rek la waxee xol la waxee. ci sa xol la waxee. ci sa yéene la waxee. ci sa yéene la waxee. kon sa ñàkk a ci sa jëmm. mu ne kon sa ñàkk a teew ci sa jëmm. tàggalewul benn yoon. tàggalewul leen benn yoon. seen ñàkk a teew ci seen jëmm. seen ñàkk a teew benn yoon. leen benn yoon. ndax benn taarix la. kenn mënu ko séddale. ñoo ñu lu ñuy liggéey. ñëpp ñoo bokk ñu jëm. mu ne li ñuy ñaan rek mooy nit ñu tedd ñooñu nga xam ne mooy nit nga xam ne yàlla àggale na àggale leen ci teraanga fu nekk yàlla àggale na leen ci teraanga fu nekk yàlla terale ñu ne seen njaboot njaboot njaboot ngeen ñu yàlla terale leen njaboot ngeen ko bàyyi ko ci ñun ñii njabooti yaram ñii di njabooti yaram ñii di njabooti ruuxu ñii njabooti ruuxu ñëpp yàlla boole ñu ci ñëpp yàlla boole ñu ci ñoom ni mu ko waxee ni mu ko waxee bokk nañ bokk te te te nañ ci bokk nañ ci bokk. bañ cee nekk te bañ cee nekk. te bañ cee nekk. nañ ci bokk te bañ cee nekk. nañ ci bokk te bañ cee nekk. yal nañu ci yàlla bokk boole. yal nañu ci yàlla boole yaa rabbi. ci zahir ak ci baatin. yal nañu ci yàlla boole. ak suñ mboolem yëg-yëg. ak suñ mboolem xam-xamuwaay. ak suñ mboolem xam-xamuwaay. ak suñ mboolem langaamuwaay. ak suñ mboolem langaamuwaay. yal na jógee foofa rek yaa rabbi. dellu foofa. mu ne ñu ngi gërëm bu baax. ci jotaay bu tedd bii ci taarix. ci jotaay bu tedd bii ci taarix. jotaay bu néew la ndax jotaay bu néew la di am ci taarix. ay sette yoo xam ne yàlla tànn na leen. yoo xam ne yàlla tànn na leen. dajale leen ci benn jotaay. dajale leen ci benn jotaay. dajale leen ci benn pàkk. dajale leen ci benn pàkk. dajale leen ci leen ci benn place. yàlla buy séddalee noonu lay séddalee. te lu nekk dana ci soppeekoo. su ko defee lu jëm ci jullit yi. jëm ci jullit yàlla yi. ci topp mi. jëm ci ni yàlla sàmmloo. ñu nekk ci seen kanam. ñu nekk ci seen kanam. dañoo nekk ci seen kanam rek. dañoo nekk seen kanam waaye kenn lañ ci ñoom. waaye kenn lañ ci ñoom. yàlla moo bindee noonu. mu ne yàlla moo bindee noonu. moo doxalee noonu. moo tax. bokk na ci yi nga ci dars yi nga jàngale tey. nee na nañ nangu ndaxte nangu rek pare fi ne yal nañu yàlla may doole nangu yaa rabbi jaar suñu digganteeg suñu bakkan bañ mën a nangu. yal na yàlla jaar suñu diggante suñu bakkan bañ mën a nangu. yal na yàlla jaar suñu digganteeg suñu juddu bañ mën a nangu. yal na yàlla jaar suñu diggante suñu juddu bañ mën na nangu. jaar suñu digganteeg suñu xam-xam yi bañ mën a nangu. yal na yàlla jaar ci suñu digganteeg suñu xam-xam yu ndaw yi bañ mën a nangu. boo nangoo rek. boo nangoo rek. fa ngay tànkee. fa ngay tànkee. fa ngay jëlee. fa ngay amee. fa ngay amee. fa ngay nekkee. fa ngay nekkee. ku fa jaarul mënta nekk noonu. ku fa jaarul. mu ne kon nag yàlla mi ñu fi jaaree te may ñu ko. yal nañ nangu. yal nañ nangu. yal nañ bokk. yal nañ bokk. dëgg-dëgg. dars la. min duruusi taarix ci jataay bii nga xam ne naadir min a taarix lay xew bu xewee rek nga xam ne bu xewee rek am na lu yàlla namu lu yàlla namu ci jataay bu tedd bii ci boole jëlee fi corona bi yal na ci boole jëlee fi corona bi yaa loo xam ne tiital nañu jegeel suñu bopp. yàlla nañu yàlla gën a jegeel suñu bopp. suñu bopp mooy yow ak man ak moom ak ñi yëpp. benn bopp rek lañ. benn bopp rek lañ. bopp boobu nga xam ne. bopp boobu nga xam ne. lu nekk ci àddina. lu nekk ci àddina. lu dul moom. am na ci ay pexe. am na ci ay pexe. waaye nag. yuriduuna an yutfiu nuurallahi. yuriduuna an yutfiu nuurallahi. illaa man alaa an yuqiima nuurahu wala kariha alkaafiruun foofu nga xam ne yàllaa koy sàmm moom kenn benn doole àggu fa yàlla nañu dugal foofu yaa rabbi ba kenn duñu mën a yàqal ba kenn du mën a jaar suñu digganteeg suñuy bëgg-bëgg mu ne dinaay waxtaan moom mii léeg-léeg mu ne bu taxu doo nag nit ñu tedd ñooñu jaar Sénégal Sénégal ay gourmet la ñuy doon. kon Sénégal ay gourmet la ñuy doon. ay waa Guadeloupe la ñuy doon. ay waa Guadeloupe la ñuy doon. ay ñeneen la ñuy doon. ay ñeneen la ñuy doon. waaye nag ci leeru ñu baax ñooñu fi. waaye nag ci leeru ñu baax ñooñu. nekk ay jàmbaar. nekk ay jàmbaar. nekk nit ñu kawe. nekk nit ñoo xam ne xam nañ ni ñuy defee jihaad fi sabilillah. nekk nit ñoo xam ne xam nañ ni ñuy defee jihaad fi sabilillah. dama axat duñ tuur dara ci kenn. te duñ tuur dara ci kenn. te liñ bëgg danañ ko am. te liñ bëgg danañ ko am. ku ne xam na ne teranga la. mu ne loolu dëgg-dëgg ku ne xam na ne teranga yàlla la. teranga bu bu teranga bu teranga bu seer la. mu ne teranga bu seer la. ndax yonent moo gën ñëpp. waaye ci yoonam pour mu agsi fii ci jotaay bi tey. waaye ci yoonam pour mu agsi fii ci jotaay bi tey. mu ne loolu yéen a ko gën a xam fi mu jaar. mu ne yàlla teggil na ko ñii nga xam ne àgg nañ fu nekk. te tuuruñ deret. oote wuñ tuur deret. waaye fekk na. misaal yonentu ñor na ci xoli nit ñi ba nga xam ne mën nañ ko toxal te du am jaasi mun nañ ko toxal te du am xuloo mun nañ ko toxal te du am ŋaayoo mu ne loolu ku ne xam na ne mu ne ñu tedd ñooñu mu tudd fii rek lu dëgg-dëgg def nañ ci lu nekk inna allaha la yudiu ahsana man amala ku def lu baax foo jaar yàlla fay na walladina jahadu fiina an yahdiyanahum subulana wa inna allaha lama muhsinin te ku nekk rek yàlla ku yàlla nekkal rek dëgg-dëgg nga def effort rek moo ci des. nga def nga def effort rek moo ci des. ñu ne la kañ la kañ la ban kañ ngay ñëw da ngay xëy da ngay gontu bàyyi na ko. ñu ne la kañ kañ kañ kañ ngaa ñëw da ngay xëy wala da ngay gontu. bàyyi naa ko rek mu ngi nii ci loxo yàlla ba yàlla dogal ko tey ñu lay defal effort nag effort bi nga def ko ak fi si raaya tugi xaqiqatan fekk àgg na fa mu war a àgg yëpp àgg na ci xol yi àgg na ci bakkan yi àgg na ci mazhar bi mu ne su fekkoon ne teel naa yëg ne yaa ngi ñëw dëkk bi yëpp danañ ñëw teeru la ndax noonu nga yem ci ñoom te noonu lañ leen yëgee te noonu ngeen placé woo ci ñun mu ne mu ne waaye comme comme que noonu nga ko waxee ñu def effort rek comme nii mu ne ñu bëree ngi ni teew na ñëw fekk si la ay borom xam-xam lañ ay jàngalekat lañ ñoom ñëpp ñu ngi ñëw ngir kontaanee xool jëmm ju tedd ji ndax am na jëmm yoo xam ne boo leen xoolee ndax yonent wax na ko kanamu borom xam-xam jaamu yàlla la mu ne xool borom kanamu borom xam-xam jaamu yàlla la rawatina borom boo xam-xam boo xam ne rawatina borom xam-xam boo xam ne tumarankewul ci tool yi tumarankewul ci tool jekk dafa ànd ak moom naka ajdaad ila hadha al majlis mu ne tumara ko ci xam-xam xam na ko xam na luy xam-xam na ko xam-xam xam na ruq yi xam na ruq yi xam na wax yi wax yoo xam ne mën na koo wax ak ñëpp ne mën na ko wax ak ñëpp wax yoo xam ne nag waxi seen bopp la ak wax yoo xam ne nag waxi seen bopp la mu ne yàlla nañu yàlla nangul yaa rabbi sëriñ bi dëgg-dëgg sëriñ bi dana kontaan nañ ndax dëgg-dëgg wéri na àgg na tey ci ngëneel foo xam ne gën na fay àgg ci tànk yu tedd yii ngeen fi ñëwoon du tànk yu ndaw mu ne te dëgg-dëgg tànk yooyu nekkul tànk yu ndaw min allahi wa ilallahi wa lillahi mu ne gannaaw loolu nag yàlla dina bàyyee leen ma ko bàyyee nañ yàlla ya comme ni ñu ko tànnalee ñu ngi xaar nag ñu ngi xaar ngëneel yi nga xam ne dig nañu ko ci jotaay yu mel nii te amul sikk ne dinañu ko defar ndax moo ñu ko wax te moo ñu ko dig itam jërëjëf sëriñ bi a ne kontaan nañ kontaan gu jéggi dayoo mu a rakka ma ngi nii di ak si Mouhamadul Mahdi nga nekkoon Maroc. waaw. jazakumullahu xayran. wa marhaban bikum. faam ñaari ñaari baat rek nee yoo xam ni bu gis ni moom la waroon a jëkke sax na ni ñaari baat yoo xam ni jàpp na ni moom la waroon a sax waaye xolam moo fees nee loolu lépp lu bëgg yàlla fekk la ci loolu moom fees na xol nee na kàddu googu mooy mu wax la ni jataayam bii mu toog dafa ñëw ci turu mbooleem ku mam Mawlana Cheikh El Hadji radiallahu anhu jaboote ñoom la ñëw indil leen seen na rawatina nag sa mbokk ma di sa doom baay di Seydi El Hadji Malick Sy Maodo nee na moom kat yaram wa moo jagul waaye bi mu ko nee dafa bëgg a ñëw fii ci yoon wu jëkku nee na daf ko daal di topp ba ni ma kañ ga ñëw ma ko mujj ma dem ba léegi nee na mu mujj ma ni ko yàlla day ku xëy képp ku xëy rek xëy gaag bëgg-bëgg waaye dogalan nag moom kenn mënu ko xëyaale moom rek moom moom ab dogalam nee na leen sëñ Maodo reetaan ko nee na waaye sëñ Maodo ni ko gis bu yàlla dogalee nga dem bu ma ko mënoon doo doo nekk foofu mukk te nekkuma ci sa waaye nag maa ngi bëgg booy dem rek nga yëg ni yóbbuwaale ñu rek yàlla dogal na foofu la ñu bokk nee la ko ko tax na kon mi ngi yeesal sëñ Maodo na mbooleem njaboot gi nag ñu ngi leen di jaale nee ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp ñu ngi teg seen njaal ci sa loxo indil leen njaalu seen kër maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu nee na yàlla na yàlla nangu njaal mi yàlla na yàlla sorele app yi yàlla buñ ko gaaw a fayante yàlla fi dee gëj nee na fi jóg moom waaye yàlla fi gëj daal yàlla fi gëj bi daal nabil Mustafa sallallahu alayhi wa ne nee na dañu bëggoon dem ziyaara ji imaam nuyu ko ndax nee na xam na ni moom fi la bokk bokk gi nag mooy cër gi bi xam ni moom lañ ko fi jagleel nee bu ci bokkul woon mën naa nekk ci biir mbooloo mi waaye du nekk ca seen kanam nee nekk googu mu nekk ci seen kanam ab cër la ne waayu juróom génnoon na àdduna nee na muy soxna Fatima Zahra nee na yónnee na fi ndaw ca dëj ba jaale ko nee na booba it ah nee na ñi fi jóge ñëpp daal gannaaw soxna Fatima Zahra radiyallahu anha nee na Serigne Makhtar Niass eh, siis eh, Niass moom it génn na fi àdduna moom it ñu ngi la koy jaal ñu ngi di jaal nag mbooleem ñu fi génn àdduna ñu ñu yëg ak ñu ñu yëgul ñëpp ñu ngi leen di jaale yàlla leen yàlla teeroo yërmande alhamdulilah nee na incha allahu dañu bëgg a jaar nag ci imam ziyaara sëriñ Habib sëriñ Habib dafa wax ni sëriñ bi nee na sëriñ bi dafa si boppam rek nee na njaal mi mu ñëw def si tey bo na ni boppam rek la jaale si loolu moo tax mu ànd ñi mu àndal nee na loolu moo tax mu àndak ñi mu àndal eh, mu waxoon ni li waroon ci dëj mu waxoon ni li waroon ci dëj bi moom la waroon lépp moom la waroon ndax moom ki dem moom la demal mu ni waaye tabaarakallahu yëg na ni wuutu nga ko ci jataay bi wuutu googu nag bi muy ñëw mu ni yéeneem jooja la bëgg rek yàlla mottalil ko ko ba li ci kanam ba daxa daawaat yi nga xamante ni bii yéen ko fiy def mu barkeelu ci loola ca daawaat yooya tabarakallah jërëjëf sëñ Habib alhamdulilah kon nee na ñu tàllal loxo yi kilifa yaa ngi ñaan sëriñ bi nee na <laughs> waaw waaw waaw sëriñ Mahdi dafa wax ni lii kat Baye mas na ko wax Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz fii waaw waaw Mouhamadul Mahdi ah, nee na at taarixu yuidu nafsa mooy taarix day day dem di ñëwaat rek jataay booba moo yeesaat ci jataay bii waaw dafay répété wu mi gengente ñaan gi ne def amoon na ci diggante Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ak Baye waaw tabaarakallah nee na kon daal sëñ bi nee na xam na nee na suñu sëriñ cheikh na ahmad tijani radiallahu an radiallahu anhu nee na amul dara lu ñu mën a def luñ koy génne moom cheikh lépp lu ñu mën a def rek cheikh nga ca digg ba te li ñuy li gàll nag moom rek lañ koy gàll it ndax mooy ki taxaw ci bunt bi ci diggante suñu diggante ak sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni nag diggante bi moom soriwul diggante bu gàtt la ndax nee ñun kat ñi dox suñu digganteeg sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi juróom rek lañu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko juróom benneel mooy foofa mooy ku fa yegg moom ci yonent bi mooy sës nga la ca des yëpp doo ca mën a yeggati moom rekk moo fay dem nee na ñu gis ni tariqa cheikh na ahmed tijani gisuñu ci lu ëpp fatiha ak salaat al fatihi nee na ci tariqa cheikh lu ëpp fatiha ak salaat fatihi ñoom gisuñu ko ci lenn lu ne ak la mu ëmb ca biir nee na ñaar yooyu li ñu ëmb ci mbooti tariqa bi cheikh fii la fekk fatiha waaye la ko ca yàlla jox moom ña ko jiitu amuñu ko woon ci fatiha nee na kon kon ñu jàng fatiha teg ci it salaatal fatihi jàngu googi nee na ñu def ko muy hadiya sallallahu alayhi wa na yoolu ñaan googi yàlla nañ ko yàlla nangul yàlla na ñu joxal mu joxal ñu ko Cheikh na Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu anhu muy suñu hadiya ci moom mu yóbbuwaale nag moom Cheikh mbooleem mag ñi nga xam ni ñoo aju woon ci moom loola it ñëw feddalil ñu suñu téye ci càllalaam ñoo xam ni téye nañ ci bu dëgër dëgër dëgër dëgër looli yàlla nañ ko yàlla defal ci diggante ñaar ñooñi bismillah fatiha ah sëriñ bi daf ñuy nettali nee na sëriñ Mahdi dafa wax ni suñu nee na sëriñ Mouhamadul Mahi daf leen di faral di nettali ne dafa na leen di nettali ñoom bis ni leen am na bis suñu suñu maam Cheikh Ibrahima Niass dem ziyaara ji foofa ca Tiwaawan dem ci darixu Cheikh Seydi Aboubacar Sy nee na bi mu ñëwee moom di ñaan nee na bi mu yàgg rek ba mu pare nee na mu daal di laaj ni waaw ana ki doon jàng alquran mu ne waa defe naa nee na sëriñ bi aaya bi mu jàng bi mu doon wax yéen yaa ngi koy fàttaliku Uh-huh. inna alladina sabaqat lahum min alxusne ulaika anha mubaaduun laa yasmacuuna xasiisaha wa hum fi ma ishtahat anfusuhum xaaliduun laa yaxzunuhum alfazacu lakbar wa tatalaqeehum almalaaika haada yowmukum alladi kuntum tuwaduun nee na loolu la fekk ñu di ko jàng ci rawda cheikh seydi aboubacrine si nee na bàyyi ni waaw kon ana ki doon wax ñu gisuñ nee na ñu xool gisuñu kenn ci jataay bi ku doon jàng loolu. nga gaa yi ñooy gaa nee na daal sëñ Amady di neena nga xam ni kon daal gaa yi ñooy gaa yi. nee na boobu moom lañ ko doon jàngal. loolu nee na mooy màndarga gu ñuy tegtaloo wane ni li nga fi def li ngay wax yàlla seetu ko waaye li ngay xalaat ma nga ca téye moom alhamdulilah li ma wax ci sëñ Abdou tamit. nee li mu wax ci maam Cheikh Al Hadj am na ñum leerul waaye mooy bés bi sëriñ Mbaye génne àddina rakki Baye. nee na am na ñu mu leerul waaye nee na mooy bis bi nga xam ni sëriñ Mbaye. ñas Baye Mbaye ñas di rakku maam Ibrahim ñas. rahmatullahi alayhi wa radiya an. biñ ko tegee. nee na keroog biñ ko tegee. adduna bi yëpp ñëw. adduna bi ñëw ñëpp fekk si janaasa ba. fekk eh, nee na fekk booba nag Mawlana Cheikh El Hadj Abdoul anhu ma nga ma jataay ba. bàyyi na ko jullee ko. na maam maam Cheikh Ibrahim Niass sa sàkku ci mu jiite mu jullee ko. mu ne ko mukk. na Cheikh El Hadj ni ko mukk. bàyyi na ko soo ko julleewul kenn ko jullee. nee na ni ko boo ko julleewul fii kenn du ko jullee. ndeysaan mu jàng inna alladina qaalu rabbuna allah summa istaqaamu nee na moom mu daal di jàng ni inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu nee na ba aaya ja jeex kon nga xam ne lii ñu nekk nii nee na ko kon na nga xam ne lii ñu nekk nii lu amoon la rek lu amoon la rek ca maam ya ak baay ya tey mi ngi ci doom yi yàlla nañ ko yàlla nu tal téyal ñu ko nee na kàddu gii mu ci tàbbal nag mi ngi koy jéggalu sëriñ bi <laughs> nee na ñoom ku ñu tuuti lañ dee na ci ci wax fii nee na lii nga mujj wax nii nee na yàlla kenn ku nekk ci ñun wan na la li mu am ba sa xel nekk ca loola waaye yombalalu la ko de nee na wax ni inna alladina qaalu rabbuna allahu yàlla nee na ah waaw ki ko wax wax na dëgg de waaye bala may mën a nangu nag loolu istiqaamatu am nee na bala ma koy mën a nangu nag istiqaamatu da cay tegu nee na bu istiqaamatu amee nag yemu lim nag digle ko te muy jëriñ ëllëg yooyu yëpp daal di ca mën a topp nag tabarakallah nee na kon loolu yi yàlla nañ ko yàlla yombalal amin fatiha salaat al fatihi waaw lu am solo wallahi ndax suma staqaamu tabarakallah